es maa ngi lay nuyu tey nga ñëw ci dese ki nga xamante ne mooy suñu papa booy Bambara mu mel ni monde làmb ñàkk nañ ku mag ku màgg koo xamante ni kenn la ci làmb waaw di wax inna lillahi wa inna rajo woon rek kullu nafsin saa'iqatul mawti kan bu ñam dund dina ñam dee ñu ñu koy ñaanal rek yàlla xare ko ajana wax moom ñu moom wax ñu fa fekk ñëpp di masaw njabootam waaw waaw loolu rek lañ ca mën wax jërëjëf ay Fass laa tudd waaye comme kii lu mu la wax rek ñun Boy Bamba doon ko fekk ci làmb fekk mu nekk champion bu ne tey jii ñetti drapeau bi mu jëloon kenn jëlagu ko ci làmb su ñuy wax ay drapeau ay ay roi des arènes ñetti drapeau la tegale ba ba muy bàyyi bëri kenn nangu ko ci moom lu ñu ko xamal daal grand la boo xam ne per la boo xam ne ku baax la wax dëgg yàlla te làmb daal perte na mbër perte na lu ba c'est une grande perte pour làmb quoi bu loolu rek lañ ko mën a seddeel mais ba ba sooy bëgg a xuus ci li wax ci moom dafay bari quoi. parce que man ba may am 6 ans 7 ans 8 ans ba 9 ans maa ngi toog di koy seetaan bëre maa kii ñuy àndandoo ak Birame Ndiaye mii ñuy àndandoo nekk xale di koy gis muy nekk ci làmb lu ne. ba combat ba muy bëre Faga 2 jour boobu Faga 2 man mi xale laa dafa jël cumbukaayam jox ma ko maa toog cumbukaayam baaw ma daan ko jël bu rëy te boobu ñoo ko dugal foofu. kon nag c'est une perte boo xam ne làmb perte na daal euh, un grand champion. bëri nag boo bon mënuñu xam ñu bari xamuñu Boy Bambara dañuy wax nii rek mais soo fekkoon œuvre am jamono yu muy bëri c'était un grand champion loolu daal laa mën a seede ci moom quoi yàlla na ko yàlla xaraa jëna